sama waajaa ngi de mais xaaj bu nduur oustaz gars yi ñu né lamb ci fi amoon daaw verdict ba lañu xaar man leen pourtant verdict amna de waye xam nga ci amono mom adina do ci nekk nekk ak serigne dang koy sutura waye ni ma la teyé non xam ñep xam ni ki ki dem ki da nga bëgg revanche ma mayaat la revanche ah déedéet déedéet oustaz nag oustaz oustaz yow li nga daj keroog yëpp <laughs> mais sama galgal bi non doom la bitter ñi <laughs> dama gal gal ma bital la lolou gal gal wa fas la mais dama la bital ni fu ma bital ne ah lu tax nga dagg vidéo bi nga ni lu tax nga dagg vidéo bi parce que yow ñep xam nañ ni tamit do ku toll ni Oustaz fa gal gal bi lañuy la ñuy laaj ni gal galgal bi mané mané xam nga ni ko dal di oustad jugal ñu may ko ko nga ni jugal xam nga déjà ni rek ngay défé ni dindil gramme bi xam nga ni rek suma la téyee ni ni rek xam nga problème la déedéet do mën a xam nga lii di problème la oustad oustad Oustaz man booy Medina laa jaar.